am Touba seen mbokk taalibe Mouhamadou Mamoun Jong Touba moo dellu si nag dina defal bii di ko defal mbokk taalibe euh, ma euh, Talla Diagne ñu fas yéene nag nekk leen fi taarif bi sëñ Moussa Ka def tudde ko Njuut Njaay euh, take ci maam Xaadimu Rasulullahi tekke sëñ Modou Moustapha tekke sëriñ Falilu Mbàkke tekke sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbàkke tekke sëriñ Mouhamadou Bachiru Mbàkke ñooñu la ci sëñ Moussa Ka nett li ñoom ñoom la ci tagg seen mbokk taalibe rek Mouhamadou Mamour Jongo moo jëlu si fii di leen ko nettali ci ni ko Maam Moussa Ka waxe ci wax yal na yàlla nangul nu ko te dool defal sunu aju barke borom Tuubaa bismillahi rahmaani rahimi wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimi wa sallama tasliman na ngeen déglu ma dellooti centa daaj basaay si di baatin ju leegenu maaj na ngeen ma dellooti fen taab daaj basaay si di baatin ju leegenu maaj damay walbati mboolem way soodaan ba fem yëpp di baatin bu jadi seetaan damay walbati mboolem way ni soodaan ba feen yépp di baatin bu jaddi seetaan dama romb ku siital mu naa ma kaay ku jiital li ma jiital lu la neex laaj ma seen mbir ma mu jiital jarul ay ngaañ ma faf jóg ne ko tuubal malaaka day gaañ te ànd ki ma àndal nu dem ba Tuuba faral jébulu moo gën torox su ku ànd ki nu àndal nu la neex laaj bee jara àndal bu leen njaaj foo nekk noonal lu la neex laaj sëriñ dee jara àndal bu yuuj njaaj defal ànd bi yàlla sëriñ Tuuba te yónneen di sa wamat nga jublu Tuuba defal ànd bi yàlla sëriñ Tuuba te yónneen di sa wamat nga jublu Tuuba إلى بارئكم يا أناس توبوا وكونوا ما سيغلوا أنيبوا ما ياو كبدر نلين كتافير أواجو أرى أسنين ماما يكتيمير ما ياو كبدر نلين كتافير أواجو أرى أسنين ماما يكتيمير maam ba ba bakke ku seetal ngërëmam day la neex laaj dangay saye fu keebuy naloo fuuj paaj ku seetal ngërëmam day lu la neex laaj dangay saye fase duniya te jëm ci uxra te sakkuy ngërëmam nangal ak busra ci lee jar mooy xadima dinaan te te maa di jëwelam moo salang lu mbaajaan abool falilu حقا خديم داها وزا شبت حبيب ونال جاها ستو بلا بلا وقت نجم خمو دام يا رب سنجم بكي سنجم سرين دام ستو بلا بلا وقت نجم خمو دام يا رب سنجم بكي سنجم سرين دام جاكوب كرمارم mooy digal ba muy raas ñi teew ak ñi fi teewul asal du seen maas ca xub maaram mooy digal ba muy raas ñi teew ak ñi fi teewul asal du seen maas ma way ndaama la gàttul te jeeti waa faas te raw yaarami faas ak rijee li mu naas ala lam tara hay naa yamis la say xee جمالا وجمالا أزال وسخير العالم ترهينا مثل سيخي جمالا وجمالا أزال وسخير سرين بندا دوسين ما بندو دوسين ماس نجين دغل بيدن بي مرم عرس ماس ما مساكني سرين بندا دوسين ما بندو دوسين ماس na ngeen déglu bindam bi borom arasmaas firim gis bu bala wax danaa ko ñambaas ba xam ne Serigne Bamba laa di firim gis bu bala wax danaa ko ñambaas ba xam ne Serigne Bamba laa di rambaas Serigne de jaraway moo yeyo taas dama yëpp ci saxaaram te laaju baas sëriñ dey jaraway Mbàkke moo yega taas yeb ci saxaaram te laajumay paas sëriñ dey jaraway Mbàkke moo yega taas yeb ci saxaaram te laajumay paas sëriñ dey ke ngurong Mustafa ba moon mu jateg maar te baatam dana ñoo leb beti mi lax yaar sa gaayib nga tey na mu jateg maar te baatam dana collet beti mi lax yaar tuuti wuloon gàttuloon ba dib duuñ bu daa reedu ko kekkul danaa saxoo muuñ réyul tuuti wuloon gàttuloon ba dib duuñ bu daaree du ko kekkul dadaa soxo muuñ dëkkoo bi sanaa yeew shaaru aw siraaju salaamin anaara layla dadaa muuru di yeryeti kaala yuy rawaan yaa nga ko daa fiite wàllu nday joor di yeryeti kaala yuy rawaan yaa nga ko daa wàllu nday joor su muuraay ba ne melxet si laas di saflaari wurus moo ka jekk ay faas su muuraay ba ne melxet si laas di saflaari wurus moo ka jekk ay faas te xeesul ba bekkit fa deew ñuul yaram waa karatax mel ni jaani mbooloo tax mel jaa ni ngooloon te yaramam tax na cër yaxeereer dadaa jolli ci baatin basaa ci ceeñeer te yaramam tax na cër yaxeereer dadaa jolli ci baatin basaa ci ceeñeer ceeb xar kanamam day nuroog magu weer te nuroog bakkanam day nuroog ngoru sunaar mam bamba caab xar kanamam day nuroog magu weer te nooru bakkanam day nuroog ngoru sunaar gëtëm yaa gën a lamsal du roog du geesoof borom cer salawoon daawu dox diriisoof gëtëm yaa gën a lamsal du geesoof borom cer salawoon daawu dox di diisoo sëriñ Bamba du geesoo bëtam la daa xool di jàllar lamsal du xoole niw mool sëriñ Bamba du geesoo bëtam la daa xool di jàllar lamsal du xoole niw mool doxiinam dafa sempal mu jekk bu daa wax ko ndànkal te ba day doxiinam dafa sempal mu jekk ay bu daa wax di ko ndànkal te bayat ba day riir melaw tànk yi rinkul mu la suul fafu nooj soxoom jàppa lax yalaf ba sewruuj melaw tànk yi rinkul la suul fafu nooj soxoom jàppa lax yalax ba sewruuj te jéegoom yëf lu jegeeti yoonu jaasaam ca tempam ma la xalaate yoonu lislaam te jigum ya lu jegeeti yoonu jaasaam la xalaate yoonu lislaam lislaam wala mel sowu ma بأرض توبا ولم يبلغ طولا جبال ليبا ولم ينشأ مسيا بأرض توبا ولم يبلغ طولا جبال ليبا جليبul barulon moom darul xanaa teey te làmmiñ wataqul waxal dalay dee jëleebul baruloon moom derul xanaa teey te làmmiñ wa taqul dalay deey lawa nooru jalaalin yuri jalaala lawa nooru jamaalin yuri jamaala lawa nooru jalaalin yuri yuri jamaala maam Bamba Mbakke ki waa gën a mel ni Abdu jàmbaar amul soxla ci capitaine wari yu soldaar ki te waa gën a mel ni Abdu jàmbaar amul soxla ci capitaine wari yu soldaar ci kullay téléphone xel ma raw na DPS xolam baa gën leer lamp buñ jafal nees ci kullay téléphone xel ma raw na depees xolom baa gën a leer lamp buñ jafal mees su cër yey nelawit xol ba moom ma xool su nekkul di bindit boo ma ngay mool su cër yey nelawit xol ba moom ma xool su nekkul di bindit boo ma ngay mool su gët yey nelawit ruuga dem aras mool xanaa war na mu raaq mbaa mu war ci te Layla du ko tee dem diwaan ca passion ya lay naan te rijaal ya lay naan la xaraba miyaa li xayba كما مس سرابا asa rahima borom taar bile semal na saaru mbargaan tabaraka ma jàngal ko saaru furxaan taar bile semal na saaru mbargaan tabaraka ma jàngal ko saaru te semal ña daaway arab ca day te jaaxal na ña daaway xajam ci soodaan mam bamba te semal na ña daaway arab ca day te jaaxal na ña daaway ajam ci soodaan te yaaram ya fi daaway ngeneel ya danaam ka buuseyri wa kabun jilil baasaan bu tawreetu ñëwaatoon nga mel ni Muusa bu Injiilu ñëwaatoon nga fab Isa bu Tawreetu ñëwoon te nga mel ni Muusa bu Injiilu ñëwaatoon nga far di Isa sabura ngi nga lamboo ba mel ni Daawud te Furxaanu nga yeesal ba far di Maamuud sabura ñi nga lamboo ba mel ni daawoot ca furxaanu nga yeesal ba far di mag moot sa géeju itamit raw raw na géejul xumaan sa hadiisit sewal na xasaayit yi nga taalif maneesu koo mool xajaayib yi nga feeñal maneesu koo jeel xasaayit yi nga taalif maneesu koo mool xajaayib yi nga feeñal maneesu koo jeel sa téere xasidaay boo tilaw i mahfoos borom kun di la gàgganul ci mbàkke yaa fees sa téere xasidaay boo law i mahfoos borom kun di la gàgganul ci mbàkke yaa fees ca mul malakoot ngay fana na ma jaam malaakay jaburut wër la far di sabaal ca mul malakoot ngay fana naj ma jaam malaaka yi jabaroon wër rafar li saabaan ca mulkook malakoon ngay fanaa na maajaan malaaka yi jabaroon wër rafar li saabaan xawaarix yafi yonnen yadaa xaray baax xaraatal nga kawaa mbàkke bamba yaa baax xawaarix yëfi yeneen ya daa baax xaraatal nga ko waa Mbàkke Bamba yaa baax mu gisaati rasuulooy sa xeeti xar baax xanaa yow daa Mbàkke jëni fu la baax mu la yónneen noté woon nooni buuri qëxtaan la saawaay noté mbaaxaan fa daaru manaan la yónneen noté woon nooni buuri qëxtaan la saawaay noté mbaaxaan fa daaru manaan sa mbootum xalimaaraw da buusu muusa te way dee nga dekkel te woon na sombootam xali maaraw daboo su Muusa caway dee ya nga nde koo li sa lor tofal ko bu suraab mu tàggoo lori duniya kasaaka uxraa nde koo li sa lor tofal ko bu suraab mu tàggoo lori duniya kasaaka uxraa mu la saawaay no te jéejam begen wa sabal la saawaay no te galwaay yëpp ci gaal wa sabal la saawaay nu teggal waa ñu yóbbu ko ci gaal li Ibrahima def taali jaay Namroos la def la be ya wa maa ci nem soos ba xabat li man tajalla anil jiili fa waylun li man tawalla suñ la say gonay toog maqaamam jiraane sa tambitil peeñ karaamay tiijaaneey saban ngay xeey karaamaati jinne dégg bay bati tey foor ci sa nga ko lamboo te tax tilaaw foor kilaaduy ngaramal xaw su yaa ko rangoo malaanum njariñal xutbu yaa ko sangoo karaamay bi nga nii li soo daanoo nañ ko ci waa Mbakke ban ba yaa daan faral xat musa wi te fi muusa nde loo lim limitam doo ko xam ba dem saa ne kay rek njaxateeg maam wayoon nañ ko ba lacal te maa ngi way daam ne kay rek maam wayoon nañ ko balakel te ma ngi julil nag ci rasulini la itaa salaatan wa salaaman te ko jaam julil nag ci rasulin ilaahi na ma ñëw way la bu nu fa doonu na ma ñëw way lay sangi Tuuba ku way bu nu fa doonu ta bi Tuuba ma way doomi Sëriñ Bamba yii nu yaakaar ba ngeen xam ne Sëriñ Bamba moo ma way doomi Sëriñ Bamba yii nu yaakaar ba ngeen xam ne Sëriñ Bamba moo di Muxtaar jëkkël Amadou na Moustapha ma dib taaw ba xam ne jiw ren wi ngeen bayoon daaw ca ga la dem mu dib taaw mu tànnaat ko lu weesu naa ñaaw sëriñ bee nu ko tànnal ci biiri tànnit jiwu tànn du jur bu samba kembeleet sëriñ bee nu ko tànnal ci biiri tànnit jiwu tollu du jur buuse mbaate mbeleet tura waa ke dafa kaar ba ay na leen kaar ne njool amina taagen ku dee fi yaakaar xalifaam yamu tànnoon ca yow man na ji ku leen pee samu bat leen ci xee ci taqwa lawa subqu maal xurbini ma jaa خديم ابن خديم رسولك لو السبق مع الغرب نعم جاء خديم ابن خديم رسولك مقيس ومراس وراس بابا هو سير ويماد ورا خطبا نلين ورنا تفاي بان بدو مخباي ndemoo nopp ci meenam ba fer ba mat waay ku koy weddina seet bis ba ban ba wuy jéem ñu tëj kër ga fa njaareem ne dun bi day jéem boroom kun téléphone Moustapha fa ñaaxeen mu ñëw yóbbu ko Tuuba ci kun fa yaagoon boroom kun téléphone Moustapha fa ñaaxeen mu ñëw yóbbu ko Touba ci kum xoyogoon tubaab yaag te yaa ci say mu waar leen te dafa leen ba ñëpp farlu keroog daa ma ko fal muy xalifaam mu jiital ko ci baatin mu dol nuyu sulaam huwal waarisu xaqan abaawu taaja هو الخوش خدا للمريد يا جام هو الوارث وقد أباه تاجام هو الخوش خدا للمريد يا جام فجر هاجي فجاجو يا كولامبو كفوت المفاسد يخلي لامبو كرامي desu xar baax ya yaa ko rango mu jibal la malaanam njureel nga sangoo yirey ban ma nga rangoo ma ne fu ñaaj te baatin bi nga lamboo ma ne fu ko laaj ne du yof koy peer nanuy daw di ko roy dunduroog piir ne leen ndaama du yof koy peer nanuy daw di ko roy dunduroog piir jumaa dogal nag moom ndigal la naax saay saxaar gi moom du ngeen raay jumaa ji dogal nag moom ndigal yu jaaraam zamimum nu zamimin yu baaraam ku gëm bamba na yeesaat te sakku jig leer ne ku la ñaakat moo la hëppab bu sun xoli ya boo dal na yaakaar sa mbóot yàlla fi baawaan ba ñépp naakaar murid yi sooy sa tool baay bana nga lit fa yàlla bu mbooy faraayil yamu daa bay ci too lil islaam fabar gobbu te doomal sa saala saw jaam dama soppi ko wax waaye raw nga say maam ku muusa di sa way keddo nga niroog daam dama sopp di ko wax waaye raw nga say maam ku Muusa di sa way gat dangaa niroog daam ma far noppi nde say ndam xajul ci xirtaas ci jébbal fi Sëriñ Fallu Mbàkke aw taas ba noo balaw nu joomun bi diw saful weer Sëriñ Fallilu mooy weer wu leen di jox leen banoo bala nu juumul bi diw saful weer sëriñ Fallilu mooy weer ween di jox leer anil Fallilu mislun fala taqiisoo imaaran bi jawaadin fasay ra'iisoo na ngeen seere na laay def sëriñ Tuuba na ngeen seere fee jàngu leen siin ba sëriñ Falilu laay def sëriñ Tuuba sëriñ Falilu laajal lu la neex laaj ku Seex Bamba di baayam lu ko neex laaj sëriñ Falilu yanjal ku la neex ku Seex Bamba di baayam dafay aay ngaañ bu lislaam dafa nubbal da ngay door xaañ nde mbakkeeki mbusooɓe fiɗae maslaañ falin falin falan falayuɓa lakad hajja wala bawasa rata yow siyaara nga makka siyaara tuba su yonnen bana ñokken nga ɓeg siyaara nga siyaara tuba su yónneen ba na ñokket nga bég su boobaa ba nga ña fa teewoon waroon nañoo raam te jébbal la kurus yañ di saw jaam di la baykate naam marhaban wa sahlan ne waa makkata daanañ la nuy si laylaam di la bayka te naa marhaban wa sahlan ndewa makkata daanañ la nuy si lay laal mi man laa saaroo fa tuubaa law ma badama fa daayin ye sëriñ Fallilu ramoo jaam amul cam su ko lamboo ci oo mu lislaam ca xar ya fi Seex Bamba daa xaray baax la Seex Fallilu Mbakke xaray kay baax sa xam-xam bi nga làmboo xajul ci ay saar ku déggoon li ma wax xam na yaa di muxtaar fu yow daatu li ma laanoo ayaa bahru huloo min li man daanoo xanaa yaa di wurus mbaa dajitu yaqoot ku déggoon li ma wax xam ne bir yi lee xoot woyof toy yu di baara sew diis sa ndey togg sa baay fat mëni fulaasiis woyof toy yu taandak di baara sew diis sa ndey togg sa baay fat mëni fulaasiis lewe domm taandak di doomi jambaar nosol ruyi te womat ndeyaa di njacoor seen yëg maam ya sërif lañ gëñee fu maam sa baay jant sa weer mërëx ba daam ca meenu ma sa nag ma mu seynu ngay meeb selang lul manu maalim li war ci say xeet mu soobee la ko nampal ma ne fu laa kooj amoo rax bu la ñaawal amoo ku ñuy tooñ ajaayib yi nga bokk ak tu yaa feeñ danu fee jóg ba tabi Tuuba na buur yokk sunu ba bul jógee raam te wamat ñi fi daaxentu yoo nu lislaam na buur yokk sunu ba bul jógee raam te wamat ñi fi daaxentu yoo nu lislaam ma feeñal fi Sëriñ Baara Mbàkke moo baax la doomi Lamin Ndaw boro mi xar baax ma feeñal fi Sëriñ Baara Mbàkke moo baax Lamin doomi Lamin boro mi xar baax ma feeñal fi Sëriñ sewal na doktoor lu waay wopp bu taflee nga wér ba def buur baram na koy xam la jal na diiwaanu ndëgoom baat taxawaayam ba doy na kiimaan borom na koy xam la jal na diiwaan ndëgoom baat taxawaayam ba doy na kiimaan birig lay رقاب رجال جلا كما جاز مدار العلوم جلا ينو باي بالا نون كاس دي جي ماودا سيرين با نكو توغال مونيل بدم شام ينو باي با la noon cas di jéemaaw daam sëriñ ba ne ko toogal muñal ba dem saam de Seex Bamba misaalam du waliyu mbaam ki ñuy sëf doomam di xaj muy raam keroog bis ba mu feeñee ci daaru dunu yaa la daam xeetam bi xayri sun kajoor ak bawol ak saalum ak njaay na ngeen jébbulu jébbal ko si ni gànnaay kajoor ak bawol ak saalum ak njaay na ngeen jébbulu jébbal ko si ni gànnaay beew saafi kamaalit laxatallaab ani saafi siraarin laxat taqalaa bu leen diŋati jéegoom njanaa amul yoon te sañ-sañ ba ca baayam lu jay seen yoon bu leen diŋati jéegoom njanaa amul te sañ ba ca baayam lu jay seen yoon sëriñ baara bu leen diŋati jéegoom njanaa amul yoon te sañ ba ca baayam lu jëy seen yoon sëriñ baag ñamu na dañuy naaw ndogaan mbaa pakk buy fel saful fafal naaw niroo tax ki ye mbir su du amu saaw ku déggoon li ma wax ba raday naaw niroo tax ki ye mbir su du am saaw ku déggoon day naaw mu hayaaw ka badrin ni leen ko taafeer Sëriñ Basiir ooy sunu mbég leer ja day ni roog weer mu hayaaw ka badrin ni leen ko taafeer Basiir ooy sunu mbég leer ja day ni roog weer ba baay bay bëgg a dem géej la feeñ ci duniyaa atum jey sa si moo jëy tubaab yu bon yaa ba baay bay bëgg a dem géej ci duniyaa atum jëy sa si moo jëy tubaab yu bon yaa ba muy dem la ko def muy mbégam ña doon jooy turam bi doga nag moom xolob murit sooy basiirun wa nasiirun li kulli raayi sharifun وشريف بالامترائي بشير ونشير لكل رائي شريف وشريف بالامترائي جمالا جمالا بو بغل نصودان جلالا جمال رانغو بغل ننصران يتي خدبي علي روي جيلي كتيجان yérey xaw si yolay sol di reere diiwaan sëriñ Basiiro dana mbaa di misaalum su doori la raar xelam maa di misaalam ku boori la suraar tawaalif ya mu taalif la jal na day ba ca wa waar na soodaan Basiiro bari xam-xam mu rafet ne leen kaar xawaa sarxu شباب الأولو من أهبان بشيرو بري خم خم ردنا الإنكار هوا شرخ شباب الأولو من أهبان شرب ولا لما بغنا سؤال الإسلام كي شايدة كي باتن ملاك سرندام شرب ولا لما بغنا الإسلام كي زاير أكي باتن ma laaj sëriñ daam sirub turwa la la moo bégal na lislaam ci sayra ki sëriñ daam la cay seere ba bàyyam ñëwee te mat maam ba woo kongo te la gàlluwaam sëriñ daam sëriñ daam ni ko salaaw binda moos la xadra joojee ca fadi lay xuus keroog daam dana teqet na ñépp bég leen gërëm nañ ma ci dem ji ma ñëw gërëm leen keroog daam dana teqeet na ñëpp bu bégg leen gërëm nañ ma ci dem ji ma ñëw gërëm leen keroog bopp bi ndam baay jalaabi lislaam ridallahi anil muminina cey daam li lee tax bas di bahruril waan du nax mukk te daytil ku mar na dem siru dex ga mu lamboo ci kun fa yàkkoon misaal maa dale kawlax di di wal ba sookoon këram yooya fa saalum da di may naan sirum ndox ma fa tuubay wa dayru ma naan ku baayam ma sa nandal ca dex ga ngay fuur kuyit muy setalub xol te dakk kaafoor nanaa yal na nu nandal bi jaay imaamoon te nu ci baatin yal na nu nandal bi jaay imaamoon te nu ci baatin yal na nu nandal bi jaay imaamoon te nu ci baatin na leen ma amiin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiina allahumma salli ala sayyidina wa mawlaana muhammadin